sëñ bi voilà victime di net comme ni ñu ko waxee Adja tey li ñu bëgg a waxtaanee ku ñuy wax euh, Moustapha Mbaye euh, Moustapha Mesere. Mesere ca tuubaa xam naa mustafaa Mesere su ma juumul ma nga bokkoon parti réew mi bu Idrissa Seck lu bon lu ne nag waxoon na ko fi président Macky Sall waaye tey jii ku tudd président Macky Sall mu simeeku sol robu avocat wu président Macky Sall waaye nag daa def audio. ci seen ndaw soo xam ni ma nga ca internet ba yor xaalisam xaw ma fu mu ndaw si jëlee xaalis ba Moustapha Messere moo ni mooy jabaru Mame Mbaye Niang ñu dem rési xool vidéo bi te dellu si waat ahousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Sénégal ndaw si ngeen gis mu yore xaalis bi nii di ko pasar pasare mooy jabari Mame Mbaye Niang mi nga xam ne moo nekk ci Prodac bi Mame Mbaye Niang mi doon giñ vingt-neuf milliards kii toog mooy jabaram gis ngeen ni mu yore alal réew mi di ko saax-saaxee lii nag sénégalais yi lay bàyyi ñoom ñu jàngatal seen bopp nan la ñuy jàngate lii ak ki nga xam ne dafa yore jàngat ko jombur ci solution info waxtu yi ña nga fa ak sa euh, Facebook ba ñoom tamit di def seen i commentaire jombul it plateau bi di leen ci ñëw Omar bun Xataab kii ñu doon dégg de Moustapha Mesre lay wuyoo defe naa conseil la ca mairie bu Touba. Mhm. ci Abdoulahat Ka mi nga xam ni it euh, ma nga ca tuubaa ñu ngi koy nii moom Abdoulahat Ka. Mhm. Euh, lii est-ce que du risque. est-ce que it tamit lii gën lu woon a jàmp li ñu def Ousmane Sonko parce que dafa wax ay chiffres ak fañ liir waaye kii moom nee na kii jabaru Mambay ñaa mi ngi yor àllu réew mi di ko pasar pasaree ndax du risque ci ndaw si ñu wane ci internet bi di pasar tasaare vidéo xaw ma ndax jabaru mambay la wala du jabaru mambay nan nga déggee Moustapha d'abord ba balaa Moustapha di wax euh, euh, nu egg ci jabaru mambay la wala du jabaram même bu ko dooroon waaw vidéo bi moom amul droit di ko génnee moom ndaw si non non moom waa ji waaw ba di ci wax lii mhm. benn du vidéo benn kami ka vidéo bi est que soxla na moom mu génnee ko. xam hmm. fois tamit euh, euh, yu mel noonu day am. maanaam ki def vidéo bi est-ce que jublu woon na ci. Hmm. ñu partagé ko ba ñëpp jot ci. si si kon déjà tey jii moom bu ko toppoon rek nii moom génne vidéo bi sans pour autant que mu wax ci moom daan ko day day war. Hmm. parce que dafa génne loo xam ne waratu woon génne te kenn sàkkuwul mu génnee ko. beneen bi si topp mooy kàddu yom ca teg commenté ko. maanaam dafa def diffusion de fausses nouvelles. waaw maanaam dafa joxe xibaar yoo xam ne wérul mhm. parce que parce que balaa ngay egg ci xibaar sax vidéo bi rek ngay njëkk a traité yow si vidéo jàmbur bi nga waaw vidéo jàmbur léegi kii mooy jabaru diw même bu doon jabaru diw mhm. est-ce que jabaru diw ba muy wàññi xaalis bi bëggoon na vidéo bi génn ba ñëpp jot ci mhm. xam naa ni bëggu ko waaw léegi ka ka filmé loolu lépp enquête moo koy indi mais lu tax tey ji Moustapha jot ci mooy problème parce que Moustapha bu ko jotee daa am ku ko jotle soit ci ab groupe la ko fekk soit nit ak ko yónnee wala leneen ak dem mais ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp moom Moustapha moom moo fesal boppam. jël jabaru Mambay waaw jël jabaru Mambay. léegi Mambay tey jii waroon na egg ci niveau wu tey te bu kii nekkul jabaram. Hmm. mu porte plainte waa ji. Hmm. na ko lan nga jublu ci lii parce que lii mun na inciter à la violence. pourtant man ndaw si laa gën a yërëm de que Pam Mame Mbaye mais ndaw si même bu dul jabar Mame Mbaye est-ce que nekkul ci insécurité. ma mais mais insécurité mën na ci ne. parce que alal ji. mais tey ji waxuma la ndaw si mais tey jii mun na indi réew mi ci insécurité parce que dafa am benn président malien. Mhm. mooy euh, Ibrahima Boubacar Keïta. Mhm. dafa am euh, doomam bi ñu wax Karim Keïta. Mhm. est-ce que xam ne ab vidéo bu génnoon mu yor xaalis di yëngu ak ay jigéen. est-ce que xam nga fa la nguuru waajuram. presque jaaree daanu parce que loolu moo frustré les Maliens. Ah, ba ñu bari jàpp ni ñii ñoom jamono ji terroriste di leen rey seeni armée amuñu ngànnaay jamono jooju am na benn doomu président boo xam ne ma ngay foos ci seen alal. Mhm. lii mun na seen nit ñi ci révolte mun na seen nit ñi ci jukk parce que tey jii tension diggante Mame Mbaye ñaa ak Sonko. Mhm. moo lekk xaalis bi lekk ko. vidéo bu mel ni génn. Mhm. tey jii ñu le 16 ñu woo Sonko. yooyu yëpp mën na am fu mu yóbbu nit ñi léegi nag li li ma yem mooy quelqu'un boo xam ne da nga ne ci parti au pouvoir la bokk mm-hmm. ban intérêt la am pour génnee lii mm-hmm. ba teg ci commentaire yi mu ci teg léegi nag nga dellu si soxna si mm-hmm. soxna si moom tamit bu deen ni woo nan ji tamit moom tamit après dinañ ko woo tamit bu deen ni ab sénégalais la nekk ci réew mi tër alal ji mais dinañ ko woo tamit na ko alal ji fan nga ko jëlee parce que am na alal joo xam ne kenn waxul ni nit waru ko am mais warul nekk ci biir kër d'accord parce que benn moom day dugal boppam ci insécurité boo gisee ñu naan yenn alal da nga ko war a yóbbu banque wala nga ut foo ko làq parce que tey jii ab wëyu mun na ko yëg jàpp ni alal ji ci ab kër la ne ñu cambriolé kër gi dem dal ci kaw kër gi. kon tey jii Moustapha Messere yoon. war na ko sama xalaat. Mhm. mais beneen bi ci topp te soxna si bu ñu ba xam ni kan la tamit war na ko laaj ko foo jëlee alal ji yow. d'accord soxna seet itamit wax dëgg war naa dem ci yoon nag. Mhm. parce que vidéo bi bu dee xaalisam la mu doon ko compter ci mu fiyute. itamit mhm. kenn waru cee toftal kàddu yi noo déggee Moustapha ci commentaire bi mu def ci vidéo yi ak ndaw si. Euh, euh, son euh, da nga wax ni da ngeen a niroo sax. ah <laughs> est-ce du man. boo demee man na de. Ah, <laughs> mais sa euh, kii sooy bu. waaw euh, xam nga danga wax lu am solo. Mhm. da njëkk ci commentaire bi nga ni. Mhm. ku da doon koo xam ni da doon euh, wax ci président Macky. lu ñaaw lu ne lu ñaaw lu ne. Mhm. ñu demaat ci ba ci yàgg. kon donc bii bi muy wax lii ak di ko def donc bi ngi woon ci nekkul woon ci pouvoir ah, bi boobu mi ngi woon boobu mi ci opposition bi. Euh, donc mu dem ba opposition bi man dama comprendre ma doomu aadama yi. Mm-hmm. xam nga tey da ngay nit ki ba pare après nga tourné waat daal di ñëwaat ci moom àndaat ak moom wax ci moom lu rafet. waaw mais li ci gën a garaaw xoolal li yàlla def. voilà mi ngi vidéo bi mu yàgg mu mu jege. waa kay indiwaat nañ ko. merci beaucoup te mi ngi ni ci au pouvoir. Mm-hmm. te mi ngi te li dina wax ci affaire Sonko ñëw na taxaw. moom mi ngi nekk fi nga xam ne moom moo di maire Touba bi ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu wàllu de passage ki nga xam ne rek moom moo di Abdou Lahad Ka sunu xarit boobule. donc moom li mu def erreur la man bu ma doon ki nga xam ne moom moo di euh, euh, xam moo war a yóbbu Sonko ci yoon. Mm. kii da ko war a yóbbu ci yoon. parce que dafa def loo xam ne dafa dafa wax loo xam ne du dëgg. ci li wax moom lii mu wax. Mm-hmm. ni lii mi ngi nii. Mm-hmm. donc yéen ñi nga xam ne yéen yéen askan wi yéen yéen ay atte. Mm-hmm. donc ñun atte nan. bu fekkee jabaru Mame Mbaye Niang la euh, kon donc li Sonko doon wax. mu ngi bëgg am doon dëgg. comprendre nga li ma bëgg a wax. kon am na loo xam ne lu bari loo xam ne nit day weer nit. te fekk yaa ngi weer sa bopp. donc bi mi ngi nii ci biir gouvernement mi ngi bokk ci état bi donc man gëwuma yenn yi mais bu ma doon xale bu jigéen tamit naa ko porter plainte. Ah, d'accord voilà macha allah ci fin vidéo yi sax boo gisee ñu ngi ci monté waale benn xale bu jigéen bu ànd ak Mambay ba léegi ñuy wane ni même xale bi compté xaalis bi moo nekk noonu ànd ak Mambay Adja noo gisee lii xew léegi ci réseaux sociaux yi nga xam da gis vidéo bi jàmbur leer na am leeru la nga jël def ko même bu doon jabaru Mame Mbaye li Omar wax est-ce que jaadu na ñuy fësali kàddu yi la itam euh, ni ko bàcc ci tali bi ci mbedd mi. <coughs> déjà man damay blâmer ndaw si. ndaw si waaw. ci filmer xaalis. Euh, non ki ko filmer ak ki ki ñuy filmer. ayca à un moment donné. Mhm. yëkkati na xaalis bi ni nii. waaw xaw ma ndax gis ngeen ko. si kon xam na ni am na ko mu jàkkaar loolu ku koy filmer mi ngi reetaan mi ngi fo. Mhm. mais luñ ci mënti wax. ki filmer waru ko woon filmer wala bu ko filmer mu denc ko ci portable am. Mhm. ba pare aussi non non non parce que lii nii li Omar wax la insécurité lay indi ci nit ki. Mhm. insécurité lay indi ci biir këram. Mhm. parce que aussi euh, malfaiteurs yi mën nañ la ciblé. Ah, bu ñu xasee xam ni moom la dañuy jàpp ni mi ngi këram. voilà alal jaa ngi këram la ñuy jàpp. voilà loolu loolu benn la ñaar. man laajte naa. vidéo bi mu ngi bëgg yàgg nag. si mbaax man dama ko laajtee ku xam jabaru Mambay nee na ma kii du jabaru Mambay ñaan hmm. wax na wax nañ ma ko. Hmm. ca jamono jooju mais wóoruma xaw ma. Hmm. mais laajte naa ko moom ku xam jabaram mu ne ma kii du jabaram. la du jabaram waree xam nga lan la ñu war a bàyyi. lu nu jël yëkkati dugal ci internet bi. lu nu jël yëkkati dugal ci internet bi. da ngay gis kuy sangu dugal kuy lekk dugal kuy anniversaire ah. dugal kuy naan dugal. mais attends léegi léegi ñun ñun amatuñu vie boo xamante ni. ñun ñoo ko moomal suñu bopp foog ñuy génne lépp loo xam ne dañ koy def mais kii mën na dajale ay natt mën na nangam ak nangam xaalis bi mën na servir lu bari mais tey jii boo nee kii jabaru mambay Mbaye Niang ak contexte bii ñu nekk nii ah, mais tey jii mu génn ñu def ko naka sudul noonu yow lor nga nit mm-hmm. man nag bu ma doon femme bi bu dee du man du ma jabaru même bu ma dee jabaru Mame Mbaye Niang mm-hmm. dinaa porter plainte déjà ki génne vidéo bi parce que mm-hmm. waa ji filmé wu ko ku jigéen ko filmé ah, dégg commentaire yi nag moo indi danger bi de commentaire yi ci vidéo bi diw mooy jabaru diw ak réew mi toll waaw laa wax dama ni dans un damay damay damay topp ki ma filmé hmm. ndax ki ma filmé moom bu ko génnewul moom mi nu filmé kon ki ko filmé moo génne vidéo bi hmm, hmm. loolu mooy yoon sinon aussi ma porté plainte kii ci teg voix vraiment quand même jërëjëf alaaji vidéo bi yàgg naam yeex na tey laam démb la ak lu mu ci mën a doon mi ngi def tour ci réseaux sociaux yi ci coowal Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko daal nee nañu kii nga doon gis léegi ci ecran bi mooy jabaru Mame Mbaye waaw xam nga man de euh, boo seetee réew mi moom sëriñ tariyaax yi sax dañuy jël alal di juug di filmer mhm. maanaam xaw ma dañ koy àbb xaw ma nu ñuy demee <laughs> mais daal danañ filmer maanaam am naa xam-xam rek doyatut mhm. il faut nga wane faaw nga génn wane ni am nga xaalis pour nit ñi daw wutal si la mhm. donc yooyu ñu bari nag ci lañuy ki ki la wan ay millions yu dul jeex bu lekkee say ñaar fukki junni nga ne ah ñemewu dem ci moom looloo yokk million ya donc ñoom système boobu lañuy def léegi leneen li ne waaw euh, man bu dinaa wuteeg yéen nu ñu gisee ci mbir mi ñëwal waaw man de wax dëgg fa yàlla daraa ma ci naqariwut yow waaw alaaji yow dalaa leer ni la kii jabaru mambay non non xam naa ne du jabaram mais tamit kooku ngay wax moom it daf fi waxal ay nit loo xamante ni bi amu ci benn preuve hmm. waaw di waxal nit waaw di wax waxal na fi ay nit loo xamante ni non fii la taxaw Oh non Mame Mbaye Niang alaaji doo tudd turam wax ay mbir waa tuddal turam wax ay mbir ci Ousmane Sonko yëkkatil na kàddu gu ñaaw gu ne wax ko ko loo xam ne bu ko indiloon preuve du ko def mais Mame Mbaye waxul tey waaw alaaji tey ndaw si lañu la moo nekk ci internet bi ñu waxal ko ay kàddu du Mame Mbaye baal wuy ma léegi baal ndaw si ndaw si man man naa def ndaw si victime léegi alaaji wuy ma alaaji alaaji baal alaaji ka ñuy waxal alaaji baal ma alaaji mbir yi alaaji léegi baal alaaji alaaji naa sañ sañ wala déedéet léegi alaaji sama xalaat laay wax léegi léegi alaaji sama xalaat la loolu laay xuloo dama koy dimbali dama koy dimbali dama koy dimbali alaaji waaw dama lay dimbali dama ne kooku ngay wax waaw Mambay ak audio ba mu def. Mm. yàq ko teg ko ci Ousmane Sonko dëgg laa du dëgg dama moo tax ma ni jeudi. loolu laa fas yéene indi bàyyil ba boobu. waaw mais da nga koy bàyyi mu wax xalaat sama xalaat naan du ma tënk sa xalaat. waaw non non du ma tënk sa xalaat. sama xalaat da ngay wax ci lii nag da ngay wax ci lii wala Omar du àggale. ñoom topp ana topp topp dina yëg topp topp yëgal ci kaw non kii bi la waaw non day kii daa mel ni kii waaw topp moom neel waaj ñu may day day kii. kii nañu may nag. kii daaj kii daaj laaj leen ko ko. xam nga <laughs> wuy ma yaa ngi dégg mani waaw da ngay teg da ngay teg affaire bi ci raay bi bàyyi maam. ba jëndi sama xalaat. nga dem sa xalaat bi reporté ko ba jeudi. non non sa xalaat day ba jeudi. bàyyi sa xalaat du dem ba jeudi sama xalaat tey jii lay. laa ndaw si mooy. victime bi la ndaw si ma déet. yow lu ci maam bay. yow waaji nga ne victime la. ndaw see man mii su ma mënee ñëw. yaa ngi dégg man dama déglu rek jeudi maam bay la ñuy su ma mënee ñëw waaw wax ci Omar mii wax ju ne. ëllëg si biir leneen di réel ci sama kaw. waaw loo xam ne lu nuru loolu la. mais Mame Mbaye waxul yaa ngi dégg bu amee ku mën a toog fële daal ne man de. sama ngañ ne wut yow ku wax Mame Mbaye wax. ma ne sama wax waaw ma ne. ma eh, eh, sama ngañ ne wut. dama la bëgg bàyyi dama dama bëgg. waaw man dama bëgg ku nekk am liberté wax li muy wax. li nga war a denc ba jeudi. moom xalaatam tey la bàyyi ko mu wax la tey mu jeex ma noonu jënd waa ñëwal waa ñëwal waa ñëwal. changé sa kii bul ma fat waaw kon bu ñëwee jeudi kon loolu war wax kon wax lépp ko bu jeudi mu noppi. bu jeudi ngeen di leneen li am solo. man xam nga tey. am na ñoo xam ne peut-être bu fekkee de mbir mi dal na ci seen kaw. Hmm. nga xam ni kat am na loo xam ne ci pénc mi. taxaweewuñ ko fi yaa ngi dégg. taxaweewuñ ko ci pénc mi kii. bu boobaa dinaa mën a taxaw. daal ne ah lii de rafetut. Hmm, hmm. yaa ngi dégg tey jii. am na kàdd yoo xamante ni bii bu fekkoon te tey ci président Macky Sall la daal supposons. Mhm. du ma taxaw wax ne lii parce que am na kenn mosu ko dégg mu yëkkati kàddu yooyu. di ko def yaa ngi dégg mais am na ñoo xam dañoo taxaw ci pénc bi wax wax yu salte wax yu bon jëmale ko ci ay nit yu ñu amut benn preuve seetlu ñu nit ki am na njaboot ak yooyu te loolu bu dalee ci kawam. sama ngañ ne wu sooy bu aussi ça nangul ko ni ah, femme bi victime la da nga naan li wax ma may ma ne la femme bi femme bi femme bi ci boppam femme bi ci boppam bu may am lu may naqari bu may am lu may naqari lu mu jëm ci côté femme bi laay wax mais côté bële moom sama ngañ nga newul non man waxuma ne Mame mooy victime bi ndaw si laa wax mooy victime bi ala alaaj léegi yow li nga bëggoon a dóor dóor nga ko li nga bëggoon a wax wax nga ko waaye xam nga fi ma jëm alaaji lu ma teg xam na ko tànk bu ma teg xam na ko newu ja leer alaaji boo nee boo nee. saa bu nee nee bàyyil tappale. yow femme bi yow wuy ma femme bi kenn xamul malien la wala wala wala guinéen la xalaat aussi dafay spontané da nga koy bàyyi yow nga fekk malade alaaji day fekk malade bi tëdd loolu moom wax ko wax day spontané fii ku nekk loo fi wax dafa spontané mais mi fekk malade bi tëdd ci ci kaw taabal ji mu ne loolu ma wax ak malade bi xaaral ma xam infirmier bi ah, ba xam li tax garab yi nangam malade baa ngi tëdd doo wax ci malade bi ndaw si mooy malade da nga dem ah? hors antenne hors sujet hors sujet man day nee ma hors antenne hors sujet moo indi ma professionnel dëgg waxal ci ndaw si la ndaw si. waxal ndaw soosu nga jàkkaarloo. non non kii yee victime dafa jëm. victime di def bi ngay wax nag victime ak yi. kii naan or àncat. damaa waaw. waaw jarut a joxoñ muy weggal kat yi. waaw ayca. ma waaw li ñu war a wax mooy. xam nga tey doonu ma woon neex yow doonu la woon neex kenn ci yow say jigéen yi nga toog soo jeg-jekoon gis ñuy partage benn vidéo mm-hmm. bétti wala sukaar mm-hmm. mu yor xaalis xamoon na xaalis jàmbur la nee na ndaw si la ndaw si mais bi di bétti moom ñuy wax loolu mi ngi ci insécurité waaw est kër xaritam di fotoo ci xaalis sax nee naa la ndaw si ànd naa ci ndaw si mais ndaw ndaw si ndaw si ndaw si xam nga la xam nga lan la ndaw si bal perdu moo ko dal mais waa ji waa ji siibalam du ndaw si. Mm-hmm. yaa ngi dégg siibalam du ndaw si siibalam waaja la. waaw mais tax ndaw see ci mais waaw ma ne moo tax ma ne la. ndaw si dafa bëgg nga naqar lu ndaw si ma ne déglu naqar loolu far force. léegi damaa war a naqar mais Omar Omar. mais ndaw si mooy victime bi. waaw waaw mais loolu laa bëgg a ndaw si. mais est-ce tamit est-ce que tamit victimiser boppam. ah. ah ay xaalis di ko def. non non kenn du ko def man daal bëgguma yooyu daal Adja Adja waru woon a filmé parce que xam nañu ñu ko filmé yatu xeexukaay non naa sax bañ maanaam gars yi non non dama ne gars yi yatu xeexukaay la ko def mën naa bañ moom xaalis bi ndaw si moom ma ne la yatu xeexukaay lan def ndaw si euh, euh, mambay lan doon mambay lan doon ndaw si voilà comme daanu ci sa ndaw si kon. léegi nag ndaw si bu dee ni ab sénégalais. mais mi ngi mettre en péril. Euh, waaw comme la man c'est dama ne bon xam nga man dafa am gis nga euh, nit ñi bu ñuy politique nañu politique. waaw mais dafa am yoo xam ni xam nga tey ki def lii. Hmm. dama la bëgg a wax ne la ki def lii moom ak kee ñoo bokk même état d'esprit. Hmm. moom ak ki nga xam ne moo nekkoon cible am. moo ko parce que da koo maanaam da koo sosal. Mame Mbaye Niang lu mu la waa ji dafa sosal. waajoo waaja waaja ay ay citation directe moo tax doo tudd turam. non non non du question. non Mame Mbaye Niang la Mame am na kàddu yoo xam ne du ma ci jaar Mame Mbaye c'est trop. maam dégg naa Omar Omar. xoolal man défendre ma Mame Mbaye sama yoon ci mambay Mbaye mais dama ne ndaw si. ndaw si fi mu toll mooy malade bi tëdd ci ci ci moom mooy na mooy victime bi moom la ñu wax ni mooy jabaru Mame Mbaye Niang moom la ñu wax ni alal jii moo ko yore waaye léegi ndaw soosu imaginer kenn ku ko xam. mais situation bi xam ne situation ay ay mbokkam eh, sax eh, eh, mais situation bi Mame Mbaye na ci nekk victime Mame Mbaye ah? waaw mooy kii nag loolu la wax nee na yoonam ci bu nekkee victime mais Mame Mbaye mun na nekk victime situation xamul daal dañ ko moomale alal joo xam ne est-ce que wóor nañ moo ko moom dëgg na d'accord kon mi ngi noonu en tout cas euh, ñi ngi ñaan rek état bu Sénégal man ak sama moroom mu mu doon ku nekk bu ñu jëlee vidéo jàmbur di ci wax naka sudul noonu mu mën koo yóbbee ñu jël bakkanam nañ ko lijjant te bañ a def na kumba am nday ak kumba amul nday Ousmane Sonko nee na damaa liir ñu ne ko kaay lijjanti kii ñu ne nag kii mooy jabar Mame Mbaye Niang te mu toll yor loo xam ni jàpp naa ne mat na 500 millions fii lii ma gis moom bu matul 500 millions ëpp na ko kii war nañ koo waa li ñu jal fii <laughs> li ñu jal fi bari na de bu fekkee nag nee nañu jabar waajooju moo ko moom nañu lijjanti loolu loolu teg ko ci woon